tey waaw xam nga wax nañu si sa yow si gis-gis on a touché un sa jaar-jaar ci Y'en a marre wax nga sa point de vue xam nga ak euh, ni nga nekk Y'en a marre lan la Y'en a marre di représenté hmm. xam nga euh, ci hip hop grand yaa ngi man waaw mais man gëj naa dégg sa son waaw parce que oui xam nga ñun léeg léeg ñu def ay sound mais buñ génnee du siw ni mu daan siwee <laughs> non parce que boy yi ñoo ñoo def invasion affaire bi boy dañu bëri doole ko c'est-à-dire ñun li ñuy wax ci ñun li ñuy ñun liñ doon wax ci ci seize mesures booy dañ koy wax ci benn mesure quoi oui ba pare am ay jumtuwaay yoo xamante ne effectivement mm, mm. yoo xamante ne ñun xëy na am na luñ jot a raw ci affaire bi tuuti quoi. est si si si Sénégal. oui yéen a ngi ci. oui dama ñëw foofu sax si par exemple politique. oui oui quoi qu'on puisse dire. oui Y'en a marre. oui dafa am lu mu liggéey Sénégal lu am doole loo xamante ne nii. même su fekkee kenn mënu ko dindi. oui parce que mën nañu ne révolution man wax souvent ma ni sax. Hmm. tey li fi xew nii ñu ko gis ko mooy ay yi nga gis ni ay idéologie gars yi di wax ay patriotes yëpp ma ne lu lu wa lu gars yi capitalisé Y'en a marre lañu capitalisé foofu noonu. mais Karim ma mën a comprendre lu muy expliquer. Karim. Hmm. mais. est-ce que suite logique gu affaire yi waroon na demee nii bu fekkoon yàlla ma jël nañ seen responsabilité. non en fait Karim. que du erreur yàlla mar ma la. non non non Karim. bu fekkee parce que je me rappelle. oui bi ñu defee lël Thiès. oui di jege dama ne nag ñoom boo xoolee vidéo yi gars yi. oui dama ne gars yi nañ dem bokk ci nekk ay député assemblée nationale. oui d'accord gars yi bañ. mais waaw waaw waaw d'accord. waaw Fadel woote na ko ñeneen ak ñeneen woote nañ ko. Mhm. yàlla ma est-ce que waruñu dem ci. oui mais mais oui non en mais su boobaa. Mhm. ñi bëgg ci Y'en mën nañ dem defi ko mais bàyyi mouvement bi nekk mouvement parce que il faut que mu am parce que en fait aujourd'hui ban problème lañu am actuellement on a un problème on les mouvements ont presque disparu lu fi nekk tey nitu dëgg moo fi nekk lu fi nekk tey Y'en moo fi nekk Sénégal aussi dafa soxla ay nit ñoo xamante ne faruñu fenn du moment où dem nga assemblée dugg nga rek da ngay dugg à partir de benn idéologie politique wala de benn gis-gis politique pour aller au parlement dem parlement baax na parce que le fait ñoom Guy Marius Sagna dem parlement parlement bi am na beneen tax na sénégalais yi gën a xam njëriñu parlement bi mais waru fa yem il faut que ñu am ay instance yoo xamante ne ñenn ñi dañuy am trajectoire citoyenne dem ci parlement bi mais il faut que ñu am encore davantage des personne yi nga xamante ne féetewuñu ci benn boor féetewuñ ci kujje féetewuñ ci nguur taxaw rek pour di fàttali. mais est-ce que mën na nekk. mais xam nga parlement boo ci nekkee mooy tu es dans le système. am na loo xamante ne dina la rëcc forcément avantage bi ngay am en étant en dehors du parlement. pour être au fait de ce qui se passe parce que le le, le parlement est clivent parlement bi daf lay jox péete loi dina ñëw doo dootoo xool askan wi parti bi ngay xool wala wala coalition bi nga bokk mais est-ce que loolu est-ce que en réalité loolu un vrai député war na mais malal un député peut être député mais oui mais moo taxoon moo Karim ci législative boobu Y'en a bi muy législative bi ngay wax ni bi ñu amee lël bi Thiès. Mhm. lan la Y'en a marre woote. lël Y'en a marre 23 juin après 23 juin 2012 bi Macky faloo ba pare. Y'en a marre 23 juin 2012 dafa organiser benn manifestation buntu assemblée nationale. Mhm. ci la ñuy wax le nouveau type de député. mooy ban taxawaay une fois que ñu élire la député. wal nga jël partie bi teg ko fee. jël askan wi jiite teg ko sa kanam voilà mais kon donc dañoo am problème mu au fait. oui parce que nit ñi li leen di yóbbu au départ. loolu mooy problème bi li leen di yóbbu au départ mooy. dañuy redevabilité redevabilité. askan wi ba askan wi ne ah kii de mat nañu ndaw ca assemblée. dem nekk ndaw keneen. après day dem nekk ndawu parti. wala kuréel bi mu bokk. il faut qu'on des députés. qui ne suivent pas le mot le mot d'ordre du chef de leur parti. Mm. li député yi war a def dañuy xool même bu fekkee chef bi wax na est-ce que am na réellement jeexital ci askan wi bu ci amul jeexital ah, bu ci amul jeexital mu def li nga xamante ne moom la askan wi soxla bu dee li ko patron bi wax am na jeexital ci askan wi effectivement mu taxaw si. donc c'est-à-dire en réalité baatu askan wi nga xam mais parce que loolu ça s'appelle pencu ndawu réew mi. réew mi c'est important mooy li nga xamante ne yow da nga fa nekk pour pour non seulement voter des lois mais pour aussi en fait pour di superviser l'action du gouvernement mais grand su ma la nee moom farul fenn par exemple. Mm. Euh, nit la koo xamante ni moom point de vue mooy dafa war a équidistant. waaw idéologie yi ñu par rapport ak mouvement école dañuy équidistant après ñu gis Macky Sall nominé mal fu ma laat. ñii xam nga nomination boo xam ne dañuy gis Macky dafa bàyyi après sax yow loolu nan la en fait nan la man toog nañu ay huit mois sept mois avant mu njaay siise woo ma ne ma conseil économique social et kii day génn Birahim Seck day génn mandaawam mat na. mais man yow laa fa bëggoon proposer en tant que société civile parce que conseil économique et social dafa war a am dafa war a am quarante sept membres société civile les organisations communautaires war a am également trente trois experts muy quatre vingt yeneen quarante yi Macky moo leen di nommé pour une durée d'un an yéen ñi nga xamante ne les quatre vingt ils sont nommés pour cinq ans mu ne ma bu ci am benn sikki sàkka Oustaz Aliou Sall jaar na fa ñeneen ak ñeneen jaar nañ fa te vraiment c'est une institution très importante mane ko je te reviendrai ñu toog déggante wuñu déggante wuñu fekk man wax naa ci ak Alioune Sané déjà ma ne ko mais amaguma ci lu ma leer on en parle reparlera après mais jour bi décret bi di génn au mois de mars jour la boo xamante ne maa ngi waaj a dem jàkkaarloo su mu benn grand frère bu tudd El Hadj Kassé ne ma ko décret moom présidence la doon liggéeyee dans la communication bi ma ko yónnee di ma féliciter man ne ko moi j'ai pas compris parce que ni l'institution ni la présidence kenn woowu ma ne ma malal nome nañ la nommé maanaam defaral lañ la nombal tànk mm-hmm. ma rafet lu ko d'abord ah. ñaaw luwuma ko ah j'ai qualifié ça de cokkaas parce que li nga ci xalaat laa ci xalaat dama ne mais Macky mu ngi dem mais mu may mu ngi may way mais Macky mu ngi dem mais mu ngi may nommé affaire bi du diire ma toog ci benn émission ak Thérèse Faye quartier général ci weeru koor bi Thérèse Faye na ma non institution bi c'est une institution c'est la quatrième institution du pays même ñi fi ñëw bu ñu même ñi ñi même bu fi Macky jóge ñi nga xamante ne euh, ñoo fi nekk mënuñu ko dindi par décret assemblée rek lañ ko mën a dindee et eh, institution boobu mën nga ci jàng lu bëri ma waxtaan ci ak samay nit samay grand frère samay xarit ñi may liggéeyandool ñu ne ma mais malal il faut prendre ça parce que c'est pas quelque chose qui te compromet parce que société civile dañ ko fa prévoir société civile comme am na gens qui pas compris mais c'est mais mais nag nit ñi bu ñu bëggee comprendre dara dinañ ko comprendre am na ñoo xamante ne comprendre nañ ko mais bëgguñu ko wax. ok man de je ne savais pas je ne noonu la demee. moo boo demee ci nit ni ñu tëggee institution bi noonu la institution bi demee. boo demee ARMP agence de régulation des marché publics balaa état bi di joxe marché bu nit ñi soumettre appel à candidature am dafa am ay membres de la société civile. yu fay nekk pour ne waaw lii d'accord nañ loolu am na ay institution yu état teg yoo xamante ne représentant société civile yi dañ fay nekk te conseil économique mu ngi fi depuis 1961 maintenant nag les politiques l'utilisent à leur guise loolu mooy problème bi Ablaye Wade bi mu ñëwee daf ko dindi ñu créer CRAES muy conseil muy conseil xawma lan de la république Mbaye Jacques Diop nekk fa Ablaye Wade am problème ak Mbaye Jacques Diop tas ko après créé waat ko affaire bi ñëwaat Macky bi mu ñëwee yokk ci e conseil économique social et environnemental e boobu moo ci amuloon environnemental xam naa loolu c'était par rapport au COP 21 et cetera ba pare yokk ci yeneen quarante membres quarante membres yooyu ñu ci ñu ci jël nag ay éleveur lañu ñii ay éleveur lañu xam élevage ñii artisan artisanat lañ nekk secteur bu nekk c'est vraiment te kuréel la boo xamante ne dafay def ay proposition yu am solo mais boo jëlee kuréel bu amee solo noonu à chaque fois nga ciy fal quelqu'un pour la récompenser politiquement perception bi ci askan wi di am mooy c'est une institution politisée yaa ngi comprendre donc loolu moom mooy li nga xamante ne mooy conseil économique et social et environnemental le vingt cinq juin ñu installé ma ñu jóge fa dem session Mbour gouvernement bu bees bi parce que pour ñu installer ñu d'abord gouvernement bu bees bi mooy def dëkk décret moo def décret ñu installer ñu bu ko deful woon kenn du ñu installer et ça c'est une attitude républicaine qu'il faut saluer ñu toogaat mu jox ñu ay orientation fekk fal nañ ma man président de commission culture artisanat sport ak tourisme commission mu ñu jox ñu ay orientation sur des questions d'employabilité des jeunes sur les industries culturelles et créatives sur le développement du sport sur le financement du sport sur beaucoup de choses mm-hmm. ñu xalaat si jébbal leen ko donc gouvernement bii nii liggéey na ak conseil économique social parce que jox nañu ay orientation ñu liggéey ci dem. vous avez travaillé pour pour pour il faut pas que les gens euh, faut que les gens xam loolu. on a travaillé bind ko maintenant ci biir affaire bi quand tu entends certains commentaires il y a des gens qui s'arrangent à faire de moi un militant de Macky mais loolu seen xalaat